projet la boo xam ni yàgg nañ koo bëgg euh, du kenn moo ñu ko defal nag wax dëgg yàlla gouvernement defal ñu ko ONG defal ñu ko si góorlu école bi si la ñu amee initiative bi am ambition bi am vision bi parce que dañu gëm ni nit lu mu góor góorgóorlu rek xaar si tànk tubayam yàlla mun na la si dimbali si loolu la ñu góorgóorloo wax dëgg yàlla ba taxawal fii

xam wax école bu tëj wax saison des pluies nawet si buru day bari ñu ni kon quartier bi euh, loolu ñu ngi koy wax si kanamu délégué ak chef de village ñu ni quartier bi euh, école bi nekk incha allah di infirmerie bi mettre à la disposition du quartier pour lan mooy euh, âge vulnérable maanaam de 1 à 15 ans Nous ku fi ñëw dañ lay faj gratuitement dañuy jël infirmier professionnel accompagné par ay anciens élèves yoo xam ni tey ñenn ñi ay généralistes, lañ médecins ñi ay de spécialité lañ nous ku nekk jox nga ñu sa cadre ni di nga permanence pour njukkal école bi la pour defal leen consultation gratuite Inshallah, délégué chef de village les conseillers bu ñu paree si inauguration bi dinañ jël journée de consultation gratuite pour au moins gën a xamale quartier bi dëkk bi avec l'infirmerie, bi l'école, école bi donc kon pour m'expliquer, expliquer voilà donc ici, c'est mooy salle de consultation bi donc bureau bi nous euh, prévoyons prévoir euh, def des def pour l'infirmier. bi la bi donc les lay consulter consultées. nañ sax un début de bu ngeen un début de dotation.

pour dépistage sucre bi yëpp école bi moo ko jënd waaw ak euh, yëpp jumtukaay yi mu war a àndal yëpp mu ngi fi euh, kii bi ñuy peser aussi kii bi ñuy peser aussi yëpp dotation la boo xam ne aussi école bi moo ko jënd mu ngi fi euh, bu ñu jógee foofu aussi fii mooy. salle de soins ma ne ko fii mooy salle de soins élèves yi ku fi am góom wala ñu war la faj wala ñu war la defal injection piqûre si salle bi lan la koy defal fii it am début de matériel mën nga ñu ko wan saane euh, mu ngi noonu si biir voilà yëpp si la nekk voilà ensuite fi moy salle d'observation. observation la wala salle de repos

donc pareeguñu ci dotation bi inshallah, allah bëgg nañ ni ko yenn dispensaire yi amee ñu am matériel bu complet bo xamni suñu élève dal du ñu soxla jëggaani dara. bëgg nañ tamit infirmerie bi mu am autorisation manam mu nekk dans les normes baña fonctionner dans la clandestinité lolit commencé nañ ci dox ay djégo té inshallah dañu bëgg am numéro autorisation comme ñep waaw lolu laal bëggona wax ko ci kanamu autorité yi ñëpp xam ko voilà ngeen yokk ñaan yi rek xam ni daal euh, ñu ngi si yoon wi di góorgóorlu waaw parce que it gëm na ni daal euh, lu war a mën a réussir ci biti Malika war nañ ko fi mun a réussir lépp si góor góor la lépp si fulla la lépp ci fayda la lépp si nangoo liggéey la parce que loolu lañ fekk suñu waajur yi di ko def loolu lañ fekk aussi yéen it suñu notable yi ngeen koy def ñu top ci tank yoy rek pour que Malika du ñeetaane dara ci bi ci quoi lool dal la bëggoon vraiment ñepp xam ko di remercier personnel bi yépp di les remercier encore une fois jere ngeen jëf merci beaucoup voilà. xamanteni mom lañu and ñu ngi am mbégte bu ré ré ré rëy sunu téway bi ci cérémonie bi nga xamanteni mom lañu invité ñu ngi nuyu ñëpp nak di nuyu kilifa yépp di wax ni yàgg nañoo teew ci ay jotaay waaye bu tey nag moom macha allah bu tey macha allah macha allah waaye nag dañuy wax ni duñu bett dañuy wax jërëjëf Serigne Ablaye dañuy wax jërëjëf Serigne Ablaye dañuy wax jërëjëf Serigne Ablaye xam nga lu tax dama ni yéen waa Chérif yéen waa école bi ñi nga xam ne ñoo toog xalaat ni dañoo war a taxawal école bi dafa mel ni ñeex bi nekkoon Malika yëpp yéen ko jël ñeex bi newoon Malika maanaam cafta beeg ñoomin seen lépp li newoon ci Serigne Ablaye jël ngeen loolu lay nuuru fi mu toll nii moo tax ma ne leen tey pour ñu mën a wax du yomb ndax ñu nee shérif école la ñu ne shérif am na am na classe yi nga xamante ni moo bar ci école ci norme yëpp tey ñu ne shérif am na infirmerie dañuy wax ni ni mu initié école bi ci liggéey bi taxawaay bi nga xamante ni moom la ñu jublu woon ca commencement ba ñoom la ñu waxante woon ak borom dëkk bi muy Chérif Abdallah ñoom naxuñu seen bopp naxuñu Chérif Abdallah kon jërë ngeen jëf Ablaye yal yàlla fayal yal na yàlla guddal sa fan waaye nag bu demee nii du ñu bett ndax yow tamit li Baye Seydi Anta Gadiaga waroon a àgg na yëpp doxal ko am nga loo ci jël di ko doxal ñun ñu fekkee démb xam tuuti ci Baye Seydi Anta Gadiaga gis la yow ni ngay doxale xam nañ ne am na loo jël ci Baye Seydi Anta Gadiaga kon yal na yàlla guddal sa fan mu ngi leen di seedeel ni Ablaye de biñ ko xamee ak léegi ci conviction mooy liggéey ak jaamu yàlla loolu lañ ko xam taxawaay bi macha allah kon nag ci turu délégué yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. chef de village mu ngi nii toog moom dina mottali de parce que am na loo xamante ni moom la bu bëri ci waxoon naa ci benn cérémonie Kër Massar ba wax waxu pamecage ma ne leen jërëjëf sëñ Ablaye ndax lépp moom la ndax mooti tibb suuf ne leen am leen dem leen lépp ay dox kon yéen bu ngeen ñëwee créer école bi école bi ñëw ba tool fi mu tool ñun ñu fekkee début bi ba fi ñu toog kon nag wax dëgg yàlla du mu def lu dul sant leen gërëm leen. di leen wax di leen wax merci avec un grand R mbégte bi nag ñun waa quartier bi ñoo ko gën a féetewoo ñun ñi nga xamante ni ci su su wet la nekk village mu jottali ñu ko niñ nekk fii yëpp di wax comme ni ko président Souleymane ji waxe tey fii ku fiy jël kàddu di nga jëlee kàddu ak émotion parce que xol bu sedd mooy tax ngay wax donc wax ji mën na xaw a dëng mais nit ñi comprendre ko noonu li ñuy jiital ci wax ji nag mooy euh, ñu ngi féliciter Ablay. ñu ngi koy encourager aussi mais ñu ngi jéem a gàttal suñu kàddu def benn témoignage bi ci des nag benn appel la bu ñuy lancer autorité yi nekk ci dëkk bi témoignage bi ñuy njëkk a def mooy. ci Ablaye mooy ñun ñoo bokk Malika bokk juddoondoo fii ci dëkk bi wante yàlla def na ñun ñoo ko mag tuuti ci ay at wante bokk na ci ñi nga xam ni référence lañ ci dëkk bi ci ñi ko mag ak ñi mu ak ñi mu mag loolu waxuma ko parce que dafa teew nii wante lu ñëpp mën a seede la man maay ki mujj a bokk ci parents d'élèves yi wante li tax ma indi fi sama doom aussi remarque la bu ma def ci moom gis nga jàngale kat dafay am rigueur rigueur boobu lañu gis ci moom loo am am am xam-xam loo am am yéene jàngale boo amul rigueur cest ki ngay jàngal bu la joxul cër munoo def ci moom xam-xam loolu la ñu gis ci Ablaye wante li jiitu loolu ci moom mooy Ablaay yéen tubaab yi dafa baat bu ñuy wax amour xam nga heure buñ ko yëkkatee rek nit ñi dañuy jàpp ni diggante góor ak jigéen moo tax ñuy wax amour mais gis nga àdduna mënoo fi def dara lu sotti te bëggoo ko xaw ma ndax ñu ngi bàyyi xel may wax cest à àdduna loo fi samp mu taxaw bëgg moo ci jiitu Ablaye dafa bëgg li muy def moom moo waral résultat yi mu koy am parce que suñu borom soxorul te dafa maandu bëgg bi moom moo waral lu mu jàpp ni war na mën a am wala lu mu gis feneen ci réew mi wala mu gis ko ci bitim réew ci établissement scolaire rek mu jàpp ni war na am ci école am loolu bëgg la bëgg boobu nag moo jiitu xam-xam bi soog a ñëw rigueur bi soog a ñëw loolu gis nañ ko ci moom ñu ngi koy ñaanal suñu borom gën ko kattanal bu baax ñu fi konné ne di wax parce que li ñu wara wax ci touru parents d'élèves yi ñi ñu ko gëna xam dañ fay nekkul yonent bi sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunuy ñaani waju ñaari waajur parce que awma complexe ben yon euh buma nit santé man duma gis suma bop man buma gis nit santé rek suma waajuru góor laay gis suma yaay laay gis parce que la ma nàmp moom laa takkamtiku kon damay sant bu baax a baax a baax sumay waajur d'abord parce que nu ma mel rek ginnaaw yàlla ñoom ñoo ko def ci man bu dee doylu ñoom ñoo ko def ci man bu dee nangoo liggéey ñoom ñoo ko def ci man ndax su ma waajur di génn àdduna onze ans la am wu góor kàddu bi ma mujj gis dégg ci làmmeñam mu nekkoon le jeudi 18 septembre 1980 mooy jógal dem tool booba cinq heures du matin moo jot li may wax chef de xam na ko booba ku am doom Malika mu am dix ans onze ans tàmm nga jënu bu fekkee buddet nga man nga buddet bu dee roosee benn arrosoir nga man nga roose ko bu dee ñaar nga yor ñaari arrosoir kon culture du travail boobu moom la ñu ko gisee du woon salarié de musul am bulletin de salaire euh, si tool yi la nekkoon di def maraîchage té defe en 1976 euh, la inauguré bâtiment bi nga xam kër gu mag ku fa ñëw moo tabax ci tolu por ak oño ak ak ak patas mbanaari patas loolu awma complexe diko wax parce que ñun doomi baykat la te ku xam baykat xam ni Euh, lu mu lekk rek lew na ko ni njeexaat kon ñu sant leen bu baax a baax a baax a baax te fépp fu nekk it jógal dem tool boobu moom laay jiital si suma kanam ba si moo prolongé ba si école bi yàlla def ma nekk si bopp bi bi si desit euh, sant suñu wasila parce que ñu itam ay taalibe sëñ Tuuba la ginnaaw ba ñu talibé séna Limaamu meññi parce que dama koy wax toujours wénu layen la namp suma yaay mam babakar ciow moko yar ku xam suma ndijaay papa lay xam ni bras droit seigne Ablaay la ku xam suma mam Seydi Anta Gajaga xam ni xarit ben bakkeenu cheikh Ablaay ciow lay la kon layen gi dama sé saf-sap bu don cieur mani cieur bu ci sax te cër kenn du ko kenn nga kon ni Seydi Anta gajaga suma mam lañ ko tuddee Seydi Anta Gadiaga momu suma yaay mooy taawam bu jigéen suma ndijaay papa laay mooy bu kon leg leg bu euh, si wàllu politique ñi daan wax naan bi ñi naan nangam boba dañoo xamul genn wàll gi laayen la genn wàll gi murit la waaye tarixa yépp laa am tànk ndax suma maam mi jur suma papa taalibe maam alaaji Malick la ba mu génnee àdduna Cerno Ahmadou Baro Njegen moo ko guddulee kon sëñ bi ñun ñu ngi fépp chrétien suñuy wëllëre la nen parce que dialogue islamo-chrétien la ñu wax kon bu ma ñëwaatee si bi nga xam ne moo ñu andi tey muy la fête du gouvernement scolaire ñu njàmbaas si inauguration bu euh, infirmerie école Chérif Ablaye Thiaw lay comme ni avons ko faire rek la école a koy def le gouvernement scolaire bu que Fosco la mais nous changé tour bi le gouvernement scolaire parce que les yi dañ leen éduquer dañ éducation à la citoyenneté Moi, lan bi dafa parce que les même bu un citoyen modèle je suis président bi suis président gouvernement dañ suis fal amon ay candidat ñu def candi ñu def campagne électorale ku nek am sa liste comme ni ñu le président de la république monsieur Diomaye fay bi fi nek non lañ falé président gouvernement scolaire Moi, am ay ministre ministre de la justice ministre de la culture ministre de l'environnement ministre des finances etc. etc. je am aussi ay député non lañ ko organiser bu ngeen xolone image euh wa yoonu ndam TV defon nañ ko en direct pour wan len rek a cheikh Ablaye tiawlay yamuñu rek si jangal élève bi mais dañuy jangal élève bi waye dañ koy yar dañ koy wadjal dañ koy préparer parce que xalé moy don mak euleuk xalé moy don jitu rew euleuk xalé mom moy don responsable euleuk kon responsable bobu dang ko wara wadjal dang ko wara préparer mu meuna xamé ndijoram xam xàmmee càmmeñam xam ni dafa war a rus xam ni également dafa war a jomb parce que parent bi koy fayal dafa war a xam ni xaalis bi mu koy fayal faru ko da koy liggéey liggéey bu métti parce que dafa bëgg doom ji raw ko dafa bëgg doom ji ëpp ko ñun itam loolu la ñuy jéem a mottalil parent d'élève bi fii si école Chérif Ablaye Thiaw Laye damay wax ni école Chérif Ablaye Thiaw Laye li ko wutale ak yeneen école bi privé du maanaam xaalis bi rek naam xaalis baax na waaye xale bi waruñu sacrifier avenir am warul fay atum lëmm te dara yokkul ci moom parce que dañu liir bu juddoo ren ba déwén màggul yóbbul hôpital faji ko te xam ne dafa feebar kon ñu itam élève bi buñ koy xool dañ koy xool ni kii c'est le futur président de la république kii c'est le futur magistrat kii c'est le futur directeur kii c'est le futur ingénieur donc bët boobu lañ koy gisee naam xaj na nag suñu système dafa xaw a metti parce que ñu nit wax nañ ko légui ci rigueur la ñuy yar dañu jël système bu jëk ba boole ko ak système bu bees système bu jëk ba moy lan kat bi ak élève bi waru yabanté warul am ci seen biir xalé bi amna familiarité bu mu am ak wajuram min na wajuram légui xalé bu miné wajuram ñew min jàngalekat kat wa mais koku il sera plus réceptif bu ko kat bu waxé du ko dégg kon damay wax toujours jàngalekat yi ni élève sax warta fekk fu kat di lekke élève bi xol xool katam ni ki yalla bu ndaw la pourquoi mu ni yalla bu ndaw la parce que kenn du gis yalla fu mi lekke kenn du gis yalla fu mi nané kon élève euh, jàngalekat yi aussi kersa boobu war na mëna dox digëntem ak élève bi ba bu ko doxalee defal du ci sañ tek bat bu jassé won ak mom ci mbedd mi du sañ ñew taxaw jakarlo mom ba nuyu bu ko njëkkee gis mbiij na wan jaar jaar waneen yoon tant que loolu amul yow li nga war a def si élève bi jàppal ni defagoo ko defe naa ni ñun loolu taxawaay boobu la ñu taxawee parce que ba ñu daan jàngal démb les années soixante les années quatre vingt suñuy musée noonu la ñu meloon te defe naa loolu mooy le bon système ma si ñaaxaat jàngalekat yi parce que dañ ni chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne tey yàlla def na le euh, Ablaye aura bientôt 28 ans Nous ngi 27 ans ak ay <coughs> ah, du du la wolof vraiment autorité fi le représentant du maire taxi les conseillers municipaux Taxi aussi, si nous doit le chef de village, le président des délégués de quartier, les délégués de quartier nous notable aussi le personnel de l'école vous m'avez personnel de l'école personnel administratif ici la la euh, les enseignants de l'élémentaire nous les enseignants du préscolaire nous également les professeurs du moyen général du moyen secondaire waye nuy ki nga xam moy l'employeur école bi employeur bi moy le GUS groupement d'utilité scolaire et sociale kiko ko moy mooy sunu doyen monsieur Djibril Mbeng mo ngi ni tok moy mag mu baax mag mu yaatu euh, keneen ki fegg ci wétam moy sunu doyen balé monsieur Saliou Kama mom moy directeur financier bi lepp luy comptabilité mom moo koy parce que école Chérif Abdoulaye Thiaw wax naa ko amul subvention de l'état état subventionné wu ko joxo ko subvention état dimbaleegu ko lépp loo xam ne mu ngi koy réaliser si ay man-manu boppam la ko réaliser duma ni day ñoo fi gën a jàppale suñu personnel mais nanguwuma ku gën a jox gëdd personnel bi may wax waxuma ko si nekk de jàngalekat yaa ngi may déglu naam parents d'élèves yi ñu ngi ñuy yoreel ndax dëkk bi léeg-léeg mu metti waaye ñun day yoreelaguñu benn jàngalekat bu fekkee am na rek na kenn yëkkati loxoom ni ma directeur man yoreel nga ma vingt sept ans ak yu weer si ren yoree laguñu fi benn jàngalekat te suñuy permanent sunu ay permanent yi nga xam ni si école bi rek la ñuy liggéey wax dëgg yàlla ñu ngi góor góorlu ba di leen fay douze mois sur douze mois de vacances sax dañ koy fay suñuy permanent suñuy jàngalekat au niveau de l'élémentaire ñu ngi may dégg mois de vacances même Covid ba même Covid ba jamonoy corona bi élèves yi fayul. ñun dañu wax suñuy parents d'élèves parce que liggéey ak andu ànduñu parents d'élèves bi nga xam ni demb ak barki demb yéen doon and situation am ah da ngay gëm yalla mois de mai bi ah, eh, eh, cour yi arrêté ni leen yam leen ci mois de mai bobu rek li ci dess ah ñu lu ci yalla booba itam néwuñu suñu personnel élèves yi yu kon dem leen tok mais dañu dem limay wax directeur financier koy dégg def prêt ay millions jox ko suñu ay kat parce que ay borom kër la loolu école Chérif Ablaye Thiaw def na ko ñu commencé leen aussi ñum kat yi di leen verser IPRES di leen verser sécurité sociale defal leen IPM institut de prévoyance maladie ñaan yàlla aussi loolu it ñu yaatal ko ba si jàngalekat yépp ñu am ko loolu mooy suñu bëgg-bëgg pour wax leen ni rek ñun exploité ñu jàngalekat parce que dañu xam gëddey jàngale ndax ki nga xam ne mooy employeur bi la mu wax mooy soxlawul bénéfice la mu bëgg mooy na jàngalekat yi nekk dans de bonnes conditions de travail na nekk li wolof naan tuute teew njëgu Bambey defe naa suñuy permanant ñun ñooy njëkk fayee ko sax administration fonctionnaire defe naa le 23 wala le 24 ku si dem si sa compte sa virement dugg na si sa compte loolu nag la ko wane mooy une bonne gestion parce que comme ni ngeen wax entreprise yu bëri Sénégal li ko yàq mooy jaawale sa poos ak poosu askan bi defe naa ji li wax na ko mais defe naa ni kenn ku nekk boo jiitee ay nit nga yéenee nit ñooñu li nga yéene sa bopp kon di nga xalaat lenn ni man rek maa war a euh, avancer. man rek maa war a doxalee ñi si des dama leen a war a nappaaje loolu wax dëgg yàlla amul école Chérif Ablaye Thiaw Laye ñu ngi def suñu kem talaay kattan xaj na li ñu yéene suñuy jàngalekat suñu personnel lépp defaguñu ko waaye ah buñ doon méngale day mën naa ni amul benn école fii si tund Malika wala département Kër Massar buy defal jàngalekatam loo xam ne ñun defuñu ko waxuma ko ngir ndamu déedéet waxuma ko aussi ngir bàkku mais nag

muy oui muy en sixième CFE si premier il est parce que bu école vous demee bay mention très bien mention A bien mention bien ah parce que wolof dañu bu lire vous avez sa ya kon félicité résultat aussi yi vous war ni administration de félicitations avez aussi aussi ni personnel subalterne muy 4 jardinier beeg ñëpp kenn ku nekk lay sa warugar yaa ngi koy def école bi doo fi dugg ba fekk fenn fu tax suñuy toilette bu la neexee nga dugg fa lal fa basang naan fa defe naa ni loolu bariwul si ay ay ay toilette suñu jardin jardinier baa ngi na le doyen le troisième âge mais macha allah espace bi fi nekk bari na école yi mu amul kon looli it jàmbaarteem ak jàppale moo tax mu am kon les élèves liñ leen di ñaan rek mooy wolof dani nak jurna na doomam wex ko mais bañu ko kon jàpp leen ni karawasi ngeen du jot suba pour tardé bi daño bëgg rek ëllëg ngeen nek des responsables karawasi ngeen di jot parce que jàngu c'est pas parce que dañ leena bañ dañu bëgg ëllëg ngeen bok ci ñi tek dañu bëgg aussi sen du ngeen sen ben masse du leen raw xagne ñu ngi naan na baye karawasi de nee leen alkati du baye karawasi de gëna yok pour résultat yi gëna yok kon li ma leen di ñaant rek mooy ngeen dégg ndigalu waajur yi dégg seen ndigalu jàngalekat dégg également seen ndigalu euh, comment dirais-je euh, supérieur yëpp di ñëw rek si APE bi vraiment di remercier le président de l'APE monsieur Talla jalo moom itam c'est un frère waaye ku bëgg école bi la euh, kuy safoo école bi la parce que dama koy wax toujours ba mu nekkagul président de l'APE amagu fi njaboot Euh, bokkul ci complexe yi parce que dañoo am dëkk boo xam ne na yàlla baal danoo man gantalay dëkk wolof la maanaam danoo mën a yenni gan te wolof day wax souvent yàq bu jël yàq bu jël gan waaw yàq bu jël gan dafay bari man Ablaye Seye dinaa jàppale élève parent bi ñëw jooytu la ni la wax dëgg yàlla dëkk bi dafa metti sama jëkkër dañu ko wàññi sama nangam sa yërmande tax nga jappale ko waye bis bu fexé nga dégg ko jël na domam yóbbu ko école bo xamni lan fay fay ëpp na fukk yoon li ñuy fay seen wax defena lool du ngor ngor ngor akoy fay wax dëgg yalla parce que li tax ñun dëkk fi lan dëkk ci malik ku ñu soxla soxla wo xaar ba suba xam nga suñu kër bo àggee fëgg problème bo am ci sa dom di nga ñuko mëna wax mais kanen ko xamni liko fi andi moy ubi école am ut xaliss bo fayul le 5 pile mu dàq la ci biti xoolum lii wala laa ñun nag dinañ si sóoraale ni kii kat dëkkandoo la kii kat mbokk la kii kat néew ji doole la kii kat lii la kii kat laa la kon it kóllëre kóllëre koy fay kon ma wax parents d'élèves bi école bi seen école la du école Ablaye Seye du école monsieur Mbengue du école monsieur euh, Biaye du école chef de village mais école Malika la école bi ñu ngi ko euh, commencé 96 97 si ñaari classe la tàmbalee woon ñuy santaat bu baax ki ñu ko tudde parce que turandoo dañu di nga ci jël juróom-ñaari bu jikko Chérif Ablaye Thiaw Laye macha allah mention spéciale jigadiwul école bi jigadiwul Malika waaw kon kon may ñaaxaat rek waa Malika njabootu Chérif Ablaye Thiaw Laye di leen xamal ni école bi seen école la parce que école bi mu ngi njukkal bu baax njabootu Chérif Ablaye Thiaw Laye parce que am nañ kersa njabootu sëñ Ablaye Thiaw laay di jànge fii ñu leen di fayeeku defe naa sëñ Mamour Thiaw taawam ba caatam am caatam a ngi fii tax actuellement di fi jàng waaw it njukkal la gu ñuy njukkal Chérif Ablaye Thiaw laay nee naa leen si ñaari classe la ñu tàmbale école bële muy école mère wax dëgg yàlla dañ ko luye woon Mbay Rasool moo ñu ko luye woon en 1996 97 mais si suñu góorgóorlu

dama ni boo tollee si som bi lekkal som bi boo tollee si naan ruy naanal ruy boo tollee si lekk ginaar ba nag doog a lekk ginaar waaye dangay ngay si naan ruy bëgg a lekk michu lan mooy xew da ngay noose sa poos noose poosu jàmbur bu ko defee nga sacrifier ay borom kër ñaata usine entreprise ñoo fii tëj lu ko waral parce que ka nekk sa bopp ba dafa jaawale poosam ak poosu entreprise entreprise bi tëj liggéeykat yi di wowali garab seen njaboot sonn kon liggéey GEM GEM mokay def liggéey màndu mokay def liggéey djel sa bop yam ak nit ni ñom mokay def c'est très important bañu paré ci lolu fi ñu taxaw tay terrain bi ñu ko jënd defena en 2008 terrain bi rek ñu ko jënde won à 16 millions 500 400 mètres carrés xaalisu état dugg si xaalisu ONG dugg si wolof dañé bari le barkel lé moko ko kon dañuy ñaan yàlla toujours lu ñu am lu mu néew néew yàlla si yàlla rof barke te comme ni ngeen ko gisee tey mu ngi R plus 3 leen si financé gul ëpp na cent millions cent million yooyu suñuy dërëm la suñuy ñaar dërëm suñuy fifteen suñuy ñetti dërëm kon loolu dañ koy remercier parents d'élèves yi nga xam ne ñoo am confiance si ñun te defe naa ni parent d'élèves yooyu bu ñu amul woon satisfaction duñ fi toog ba nëgëni parce tey école sur Ablaye Thiaw anciens ancien élèves yooyu tay seen i doom ñoo fiy jànge ba terminal ay doomu ancien élèves ñu nga kon ma ngi remercier walé aussi l'AMICAL des anciens élèves des cours privés Serigne Ablaye Thiaw Laye si seenu nous si seenu taxaway ñëwaat ci gouvernement scolaire bi di leen encourager di encourager le président Baye Modou Ngom gis na ko fi sax vraiment gis na activité yi ni ngeen ko doxalé japp nañ ni yéen ngi yoon wi leen tégon kon yalla na leen yalla def mak yalla yalla jàppale leen yàlla suturaal leen ba li parents yene ci yene aussi ngeen am ko remercier aussi wa quartier bi parce que ku wax xalé xam xalé aussi leg leg faaw mu def ak jubadi xalé matul mok momine la leg leg ñu xaw a pa ah, dëkkandoo yi comprendre ñu wax deug yalla parce que koñ bo def euh, presque 28 ans ah jàmm rek nga fa am parce que wolof dañ ni loxo bu yàggee ci pax jàmm la fa fekk kon ñu sante ko yalla sante ko parents yi vraiment gërëm ñep xañ na wax mom dafa yombul ah ku ñu faté rek nga xam japp ni euh gërëm nañ ñep kontaan nañ ci ñep sant nañ assalamu alaykum wa rahmatullah wa salam ala rasulullah jere ngeen jëf di jéggalu aussi ci cadre yi ñu yëkkati ndax jappon nañ ni sax tay amuñu fi cadre ndax euh, bi ñëw gis bàyyi ji di wax simmi woon nañu sunu mbubb nii buñ ñëwee tey dinañ fi jël kàddu ndax bu jiini waxee rek mën nañoo waxaa leen ni waaye nag fekkee dañ naan mucc kon ñu ngi nuyu fi tey ñëpp di jiital ci nuyoo bi le chef de village Moussa Ndiamé seen ñu koy ñaanal yan bi yàlla ko yàlla woyofal li nga bëgg ci mel yàlla na ko yàlla defal di nuyu les délégués de

du ci sori ndax ñepp am nañ sama digënté ak mom sama mag la sama xarit la monsieur le maire gaja Hadj aussi lima dal ci jigéen moma dal ci mom wax dëgg fi yàlla moom nek sama partenaire sama conseil di sama lepp di nuyu madame le maire ku yaté mom sama sama compagne la won waye léegi sama gor la aussi ñu ngi lay nuyu baax eh, di nuyu les parents d'élèves nga xam te ni ci ñom lañuy seen kàddu lañuy waxé di jéggul nak xëy na li ñuy wax mën na jub ko mun a dëng waaye lu ci jub rek ñu xam ni yàlla mi dara teewul la lu ci dëng aussi ñu xam ni doomu aadama mu matul ñu ngi leen nuyu bu baax a baax les parents di nuyu nag ñi nga ni ñoo seq école bi di ci jiital gis nga xamante ni liñ leen di sante mooy choix bi ñu porté ci Abdoulaye Seye comme directeur wax dëgg fa yàlla xaw ma lu leen orienté waaye choix bu baax la la meilleur choix la kon ci lañu jaare nuyu monsieur le directeur Abdoulaye sey mom luñu wax ci mom doyul yalla dogal na sax ñun mat bi mom sédé ndax nit ki amna noy mel ak mom lo wax ci mom rek danaan daf ko bëgg Abdoulaye li tax mu bëgg ko ñett la ba ñent bi ci ñëk moy ku gëm bopam la gëm bop gëm sa bop nak moy nga xamni lu nit mëna a nekk wala lu nit mëna am leneen mën lu ko may lu dul liggéey moom loolu mooy gëm-gëmam beneen bi aussi nit bu la yàlla dimbalee ba booy wax di wéeru ci waajur loolu loolu loolu mayu yàlla du ñëpp ko man am na ñoo xam ne bëgguñu sax ku tudd seen waajur mais bu la yàlla dimbalee nga am waajur yoo xam ne ay liggéeykat lañu ay référence lañu foo toog di wax ñoom nga jël comme référence kon Ablaye ñu ngi lay sant baax ci côté boobu beneen bi nag mooy li tax ñu ni sunu njaboot. Chérif pour école am Nous Mesdames et messieurs, les professeurs, les parents d'élèves, c'est avec un profond honneur et une grande responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que président du gouvernement scolaire de notre école. Nous sommes réunis ici dans un esprit de collaboration et de, partenariat conscient que l'éducation de nos jeunes est une responsabilité partagée entre écoles. Les enseignants, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes, en tant que gouvernement scolaire, nous sommes déterminés à promouvoir un environnement d'apprentissage dynamique, inclusif et respectueux. Nous croyons fermement que chaque élève a le droit d'évoluer dans un cadre qui encourage sa curiosité, cultive ses talents et favorise un bien-être. Nous sommes conscients des défis auxquels notre communauté éducative peut être confrontée, mais nous sommes également convaincus que ces sommes également convaincus que ces défis peuvent être surmontés grâce à une collaboration étroite et un engagement commun envers l'excellence éducative. Nous sommes ici pour écouter vos préoccupations, pour travailler en partenariat avec vous et pour veiller à ce que chaque enfant reçoive l'éducation de qualité qu'il mérite. Ensemble, en tant que parents, enseignants et élèves, nous pouvons créer un environnement scolaire où chacun se sent valorisé, respecté et soutenu dans son parcours d'apprentissage. Je vous invite à nous rejoindre dans cette noble mission, à partager nos idées, vos suggestions et votre soutien. Ensemble, nous pouvons inspirer nos jeunes à atteindre leur plein potentiel et devenir des leaders de demain. En conclusion, je tiens à remercier pour votre confiance et votre soutien continu. Ensemble, nous pouvons bâtir un environnement brillant pour nos enfants et pour notre communauté scolaire. Merci à vous. Vive, vive le gouvernement scolaire. Vive les cours privés Euh, si olof liñ fi jotoon wax si nasaraan di nuyu parents d'élèves yi fi teew di nuyu professeurs yi fi teew di nuyu tamit autorité yi fi teew di leen xamal ni le gouvernement scolaire pare na pour liggéey ak yéen yéen parents d'élèves yi pour déglu andagien ànd ak si cursus scolaire bi jappelé élève yi fi nek suñ morom élève yi suñ morom ndaw yi nga xamné ñoy jang bañu réussir seen euh, parcours éducatif di len xamalaat tamit ne ñëwuñ fi juste euh, parce que bu ñu nee gouvernement scolaire ñun ñooy euh, ñii nekk lieson entre prof yi ak élèves yi ñun ñoo fi nekkal élèves yi bépp euh, problème bu mënti am wala kaa daal bon taamu ma olof bu baax quoi moo tax <laughs> maa leen remercier bu baax yéen parents d'élèves merci. merci Baye Modou. tàcc leen ko.